la fi war a bëreel barki démb jaay la ko Jackson daan ci ay seconde barki la ko jaay ci daan ci ay seconde euh, amee dem moom dafa soxor bi dafa bon moo tax mënut dem xol bu bon la yor naan nii laa mel déedéet dafa soxor yàlla non non yàlla mooy def loolu ci doomu aadama bi ñëpp booy bi ni mu mel xañ na loolu la ko soxoree rëg rëg moo tax ñoom ñaar bi ñu jubóoyee yàggul barki Sëriñ Bàmba Mbàkke bi ñu jubóoyee dafa soxor jël gox bu ne mu ne kii la te euh, caaral googu jamono yi yàlla rëg-rëg la fa teg. mais problème mu rëg-rëg non déglu ma rek waaw d' accord d' accord mu rëg-rëg moo tax muy wax la ma wax papaam jooju xañ na sama mag jooju moo leen naqari te li ma wax dafa am.